Thank you. jërë ngeen jëf Barthélémy Dias njiital parti socialiste l'observateur nee na nañu doomi Sampol Dias ji loolee la bëgg a dégg bi li yéene kaay bi moom maire bu maire moo Sacré-Cœur di Barthélémy Dias moo ko wax ci làmmiñu boppam ca Fass bogam la dem sos fa benn pëj ji ñu naan ko rubrique tuddee ko les vidéos de Barthélémy Dias bi mu ci njëkk def nag l'observateur nee nañu démb la ko def te Ousmane Tanor Dieng la ci doon dëkk nee na kii di Ousmane Tanor Dieng ginnaaw mandaam ci boppu parti socialiste 2019 ca lay jeex moom Barthélémy Dias samp nam dëndëm ngir wuutu ko ci boppu parti socialiste doon secrétaire général bu PS Dias ak li mu doon ci biir PS l'observateur xëy ñu ko fàttali bokk na ci secrétariat exécutif national bu parti bi bokk na ci comité central bu parti bi bokk na ci bureau politique bu parti bi mooy it sa premier adjoint à la vie bu parti socialiste ci vidéo ba ba muy wax l'observateur na nañu wax na ci mbiri Khalifa Sall moom Barthélémy Dias nee na ñu bëgg koog ñu bañ koo am kii di Barthélemy Dias jël na ay gëtam teg ko ci toogu Ousmane Tanor Dieng nee na doon secrétaire général bu parti socialiste loolee la bëgg Walf Fadjri ne ko Barthélemy Dias ci tànki tulli Tanor la taxaw leeral na it ne doonul candidat PS ngir di xeex ak a xeexal Ousmane Tanor Dieng candidature la bu mu samp ci ngëm-ngëm Ousmane Tanor Dieng mi jiite parti bi mandat ñeenti la am suway ca lay jeex bu ñu ca yeggee moom Tanor Barthélemy Dias ne waratut a wax waratut a parti socialiste Macky Sall buy xëy di ko dàq nañu dàqante ji ci libération xooli fa la xew bu sub tabaski ba Marème Faye Sall demee kër Abdoulaye Wade doon ko nuyu ji ak di ko siyaar ji journal bi nañu yéene kay ñu naan la lettre du continent li mu bind mu wax ci yëf ba Marème Faye demee seeti Abdoulaye Wade Wade da koo dàq yëf yi demewul noone loolee du dëgg li am yéene kay bi nañu bu tabaski la am ci tisbaar ji maanaam ay 14 heures première dame bu Sénégal di Marème Faye Sall demoon fan résidence ci kër maître Madické Niang Abdoulaye Wade nekk demoon fa doon ko nuyu ji ak doon ko siyaar ba mu yeggee gardien ba la fa fekk nag yéenekaay bi dañu Marème Faye Sall ba mu yeggee wàccul sax otoom weeru otoom la wàccee laaj gardien bi ana góor gi moom laa ñëwoon doon ko siyaar si gardien bi ne ko góor gi dafay nelaw nee na dafa sonnoon ndax dafa demoon Masaalikul Jinaan julli ji yéenekaay bi nañu ci noonee ca la Marème Faye Sall yéegalaatee weeram watam continuer Les Échos xëy dëggal xibaar bi ba xamal ñu ne sax keroog ba Marème Faye Sall di dem doon seeti Abdoulaye Wade àndul ak protocole Moustapha Diakhaté la àndaloon ak doomam Amadou Sall moo doon dawal li indi turu Samuel Sarr ci wax ji journal Les Échos nañu moo di dañ faa daje moo demoon doon siyaar ak di baalu ak Abdoulaye Wade ndax fan yi yëpp ñoom ñaar mu di Samuel Sarr ak Abdoulaye Wade neexoowuñu ba mu yeggee gardien ba la fekk ci buntu ba la gardien ba wax première dame moom la ko wax mu di Abdoulaye Wade dafay nelaw doomi Abdoulaye Wade ji di Karim Wade moom la direct info yeewoo nee nañu déwén di ci lay ñibbi si Sénégal yéene kaay bi nañu yegg guñ waaye jamono ji Karim Wade réer mër la def kenn dégg ko fenn journal bi nee nañu ginnaaw ci biccoog mbaa loolu mujj ndax duñu fi doxee tëj ku répression enrichissement illicite ñëpp nuppaloo ndax Macky Sall bi mu ko dekkalee def ci xaalis bu dul jeex ku répression enrichissement illicite Karim Wade ak Tahibou Ndiaye rek la fi atteegum seeni mbir te nag yéenekaay bi nee nañu dugguleet ndax ba ñuy soog a taxawal kër yi ci réew mi 1984 ci jamonoy Abdou Diouf ñetti nit la ñu atte woon ca kër yi kër yi doxee fa faatu mu di Bekay Sène ma jiite woon Banque de l'Habitat du Sénégal ma jiite woon Sonafor ba ñu ci jugee fa la cour répression enrichissement illicite doxee faatu ba ni ko Macky Sall dekkalee lu mu taxawal te di ko dundal mu di OFNAC Seynabou Ndiaye Diakhaté ma ko jiite moom la journal l'évidence xëye ba noppi xëy ab taxaw seetlu ci OFNAC président Macky Sall dane woon kër yi pour ñu fi jugee la OFNAC pour ñu ñu fi nekk waaye l'évidence nee nañu ci jamonoy Nafi Ngom Keïta ci la gënoon a sentir xerañ ak liggéey bu OFNAC Seynabou Ndiaye Diakhaté léppam ci këyit la yam Sall yéenekaay bi nañu amul kenn ci ñoom koo xam ne ba nga doonee président jëloo sa mbokk fal ko dugal ko ci gouvernement bi 1960 ba léegi noonu la fi demee Amadou Tidiane Wane ne waa Enquête yéenekaay Léopold Sédar Senghor am na lu mu ci doon seet am na lu mu ci doon ragal Abdou Diouf amutoon fit Abdoulaye Wade dafa rakkaaju woon kii di Macky Sall nag day def te àndul ak xelam day def te du xalaat boroomi xel dëgg la la témoigne xëy di waxtaanal Madieye Mbodj bu yoonu askan wi Ibrahima Sène bi laaj ñu parti de gauche ñu nekk ci réew mi ndax deseeti nañu dara ci réew mi réewum Sénégal mbir muy faral di dal jigéen ñi di leen jural ab coono ak kersa moom la l'observateur xëyee mu di li ñu naan ci tubaab fuite urinaire di jigéen ñuy tur ndox te duñu ko yëg ñu mu dal ñu ci bari xëy nañu nit yi l'observateur ni ñu koy dundee attañang mi ngi toll ci fanweer ak ñett moom nee na bu ma sànnee bëreet jóg wala mooy reetaan yëf yi da koy dikkal te du ko tey keneen ku ñu naan Aïda Sarr toll ci juróom fukkeet ak ñaar maanaam cinquante-deux ans nee na waa l'observateur loolee xaw naa tas ab sëyam